booba nag sëriñ su mag sa ak xutbakat ya ñu ngi doon fexeel yéesu ngir jàpp ko reylu fekk booba ñaari fana des ci màggalu bésu jéggi ba ak màggalu mburu ya amul lawiir kon nag ñu ne bu doon ci bisu màggal bi ngir yëngu yëngu bañ a am ci nit ñi bi nga xamee ni yeesu nekkoon na dëkku betani mu dem këru simon ma gaana woon di fa lekk noonu jigéen ñëw yor njaq lu ñu defare doj wu albaatar njaq li def lajkoloñ ju raxul ju ñuy wax naar tey jar lu bare bari jigéen ji toj njaq li tuur lajkoloñ ci boppu yéesu waaye amoon na fa ñu mer di xulti seen biir naan yàq gi lu muy jariñ ma mëneesoon na jaay laj kolen ji ci lu tolloog peyug atum lëmm jox ko miskin yi noonu ñu daldi gëdd jigéen ji waaye yeesu ne leen bàyyi ko defal na ma jëf ju rafet lu tax ngeen di ko sonal miskin yaa ngi ak yéen bis bu nekk te man ngeen leen a dimbali saa su leen neexee waaye du ngeen ma gis ba faw jigéen ji def na li mu man diw na sama yaram ak laj koleñ ngir waaja sama rob laata moo jot ci dëgg maa ngi leen koy wax fépp fu ñu yéene xabaar bu baax bi ci àddina sépp dinañu fa fàttali it li jigéen jiy def ca waxtu woowu kenn ci fukki taalibe ak ñaar ku tudd yuda iskariyo dem ca sëriñ su mag sa ngir wóoru yeesu bi ñu ko déggee ñu am ca bànneex bu réy dig ko xaalis noonu mu fexe jamono ju mu leen mën a jébbal yéesu bés bu jëkk ca màggal ga ñuy wax mburu ya amul la wiir taalibe yeesu laaj ko foo bëgg ñu defaral la reeru jéggi bi bés bu jëkk booba nag mooy bés ba ñu farala rendi xaru màggalu jéggi ba noonu yéesu yebal ñaar ci taalibe yi ni leen demleen ca dëkk ba foofa góor gu yenu njaq lu def ndox dina taseeg yéen ngeen topp ko kër gi mu dugg nag ngeen ni boroom kër gi kilifa gi nee na ana néegu gan bi may lekke reeru jéggi bi man ak samay taalibe dina leen woon néeg bu féete kaw te yaa ñu defar ko ba lépp jekk foofa ngeen nuy defarale reer bi bi mu ko waxee taalibe ya dem ca dëkk ba gis lépp ni leen ko yeesu waxe woon noonu ñu defar reer bi bi nga xamee ne timis jot na yéesu ñëw ànd ak fukki taalibe yi ak ñaar ñu toog di lekk bi ñuy lekk nag yeesu ne leen ci dëgg maa ngi leen koy wax kenn ci yéen ku bokk ak man di lekk sax dina ma wor taalibe yi nag am na xar ñu daldi ko ne kenn kenn mbaa du man mu tontu leen kenn ci yéen fukk ak ñaar la kuy cappandoo ak man ci ndab li doomu nit ki mu ngi dem ni ñu ko waxe ci mbind mi waaye ki koy wor dina torox bañoona a juddu moo gën ci moom noonu bi ñuy lekk Yeesu jël mburu sant yàlla jox leen ko naan jël leen lii sama yaram la ginnaaw loolu mu jël kaas sant yàlla jox leen ko ñépp naan ci mu ne leen lii sama deret la ji fas kóllëre gi te mu tuuru ngir ñu bari ci dëgg maa ngi leen koy wax dootuma naan gannaaw tey ndoxum reseñ mii ba kera ma ci naan bu bees ci nguuru yàlla noonu ñu woy yàlla ba noppi génn dem ci tundu olivia booba yéesu ne leen yéen ñépp dingeen ma dàggeeku ndaxte bind nañu dinaa dóor sàmm bi xari jur gi tasaaroo waaye bu ma dekkee dinaa leen jiitu ji galile kon piyeer ne ko bu la ñépp dàggee ko man duma la bàyyi mukk waaye yeesu tontu ko ci dëgg maa ngi la koy wax guddik tey balaa ganaara sab ñaari yoon dinga ma weddi ñetti yoon waaye piyeer gën a sax ci la mu waxoon naan boo xamee ni sax dama war a dee ak yow duma la weddi mukk taalibe yépp it waxe noonu noonu ñu dem ci barab bu tudd setsemaane yéesu ne taalibe yi toog leen fii ma dem ñaani mu ànd ak piyeer saak ak yowaana daldi jàq ba xonet mu ni leen sama xool dafa tiis ba ma bëgg a dee toog leen fii xool noonu yéesu dem ci kanam tuuti daanu ci suuf di ñaan ne waxtu wi teggi ko bu loolu mënoon a am mu ne abba baay bi yow mi dara tëwul teggil ma kaasu naqar bii moona bu mu doon sama coobare waaye na sa coobare am noonu mu dellusi ci taalibe yi fekk ñuy nelaw mu ne piyeer simon danga nelaw amuloo sax doole xoolandoo ak man benn waxtu xool te ñaan ngir bañ a daanu ci fiir seen xol jag na waaye seen bind woyof beneen yoon yéesu dem di ñaane noonu dellusiwaat fekk leen ñuy nelaw ndaxte seeni bët dañoo diis xamuñu lu ñu koy tontoo ñetteelu yoon mu dellusi ci ñoom ne leen yéen a ngi nelaw tey noppalu ba tey jeex na waxtu wi jot na ñu ngi wor doomu nit ki ci loxooy bàkkaarkat yi jógleen ñu dem ki may wor a ngi nii di ñëw bi yeesu di wax yudaa mi bokkoon ci fukki taalibe ak ñaar agsi ànd ak mbooloo mu bari mu jóge ca sëriñ su mag sa ca xutbakat ya ak ca njiiti xeet wa te gànnaayoo yi ak yet fekk ki ko naroon wóor joxoon na leen tegtal ne leen ki may fóon moom la jàpp leen ko yóbbu ko te wattu ko bu baax noonu mu ñëw ci yéesu ne ko kilifa gi daldi ko fóon bi mu ko defee nit ñu song yéesu nag jàpp ko waaye kenn ci ñi fa taxaw bocc jaaseem dóor surgoob sëriñ bu mag bi nopp bi dagg yeesu ne leen jóg ngeen ngir jàpp ma gànnaayoo jaasi ak yet mel ni ñuy topp sàcc mën a daan naa toog bés bu nekk ca kër yàlla ga di jàngale te jàpp leen ma waaye lii am na ngir mbind mi am ci kaw loolu ñépp dëddu ko daw fekk amoon na ca waxambaane wu lëkkaayoo woon sër topp yeesu ñu daldi ko jàpp waaye waxambaane ma wàcc fa sër bi daldi daw def yaramu neen ñi jàpp yéesu yóbbu ko ci sëriñ bu mag bi te foofa la sëriñ su mag si njiit yi ak xutbakat yépp dajaloo piyeer nag topp ko fa sori ba ci ëttu sëriñ bu mag bi mu toog fa ak alkaati yi di jaaru ci taal bi noonu sëriñ su mag si ak kuréelu àttekat yi yépp di wut ku mën a seede lu daan yéesu ba ñu man koo reylu waaye gisuñu kenn teewul sax naafeq ñu bari ñëw seede ci yéesu lu dul dëgg waaye seen seede ànduñu ba mujj naafeq taxaw seede ci moom naan nun daal dégg nañu mu ne dinaa toj kër yàlla gi loxoy nit liggéey tabax ci ñetti fan geneen gu nit liggéeyul waaye ba tey seeni wax ànduñu ci kaw loolu sëriñ bu mag bi taxaw ci seen kanam ne yéesu doo tontu lu la nit ñi di jiiñ waaye yeesu tontuwul dara ne cell sëriñ bu mag bi dellu nag ne ko ndax yaa di almasi bi doomu yàlla ju tedd ji yeesu tontu ko moom laa te dingeen gis doomu nit ki toog ci ndejeeru aji kàttan ji di ñëw ci niiri asamaan bi ko sëriñ bu mag bi déggee nag mu daldi mer ba xotti ay yéreem naan weddi na yàlla lu nu doyati seede lu ngeen ci xalaat noonu ñépp teg ko dee ci kaw loolu ñu daldi tifli ci moom takk ay bëtam di ko dóor ay kurfeñ naan ko yow wax nu ci kàddu yàlla ku la dóor ba noppi alkaati yi teeru ko ak ay pes piyeer nag ma nga toogoon ci ëtt bi féete suuf noonu benn mbindaanu sëriñ bu mag ba romb fa mu gis piyeer di jaaru xool ko jàkk naan yow itam àndoon nga ak yeesu nasaret moomu waaye piyeer weddi ko naan xawma li ngay wax dégguma ci dara mu daldi génn dem ci buntu kër ga foofa nag naan mi gisaat ko mu ni ña fa taxaw waa ji ci ñoom la bokk waaye piyeer weddiwaat ko nees tuuti ña fa taxaw ne piyeer yow mii de ci lu wóor bokk nga ci nde waa galile nga waaye piyeer daldi giñe ko waat naan xawma nit ki ngay wax ci saa ginaar sab ñaareelu yoon noonu piyeer fàttaliku li ko yéesu wax balaa ginaara sab ñaari yoon dinga ma di ñetti yoon mu daldi jooy jooy yu metti